juróom ñaar fukk ak juróom benn sàmm bu baax bi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub yu mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission bii di yoonu njub ci njàng mi weesu déggoon nanu yéesu ñi xamoon lépp li ko waroon a dal ni mu tàmbalee woon a xamal ay taalibeem ni mu war a deewe ca Yerusalem te dekki ca ñetteelu fan ba. yeesu xamoon na ne tuur deretam ni sarax suy dindi bàkkaara taxoon mu juddu ñëw ci àddina gisoon nanu it ni borom bi yeesu wone ndamam lu rëy li bi mu nekkee ca tund ak ñett ci taalibeem xarkanamu yéesu doon na melax ni jant te ay yëreem di ray ray weex tàll bay melax noonu la ndamu yàlla li dëkkoon ci yeesu feeñoo tey jii nag danu bëgg a jëm kanam ci linjil bu sell bi ngir gis ni yéesu méngalee ñi koy topp ak xar yu regg looloo waral sunu njàngum tey mii di tudd sàmm bu baax bi gisoon nanu ba noppi ci mbind yonent yi ni yàlla di farale méngalee doom aadama yi ak xar yu réer te ñàkk sàmm waaye yàlla bëggul woon doom aadama sànku mel ni xar yu amul sàmm ba tax mu wàcceel nu ab rammukat ab musalkat ngir jiite ci yoonu jàmm te it ngir musal nu ci sunuy noon maanaam ci seytaane ak bàkkaar ak dee ak safara sudul fay mukk ndax xam ngeen kan mooy sàmm bu baax bi yàlla wàcceel doom aadama yi su ngeen ko xamul nu ngi leen di woo ngeen déglu bu baax te xam li ñu bind ci linjilu yowaana saar fukk dafa am bés yéesu wax yawut ya ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku jaar feneen fudul ci buntu gétt gi kooku sàcc la saay-saay la waaye ki jaar ci bunt bi mooy sàmm xar yi yéesu misaaloon na leen loolu waaye xamuñu lu mu leen doon wax noonu yéesu newaat ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax man maay buntu gétt gi man maay bunt bi ku jaar ci man dinga mucc dinga mën a dugg ak a génn dinga am it mbooy goo mën a fore sàcc bi moom day sàcc si rekk di rey ak a yàq man dama ñëw ngir nit ñi am dund ba nekk ci naataange man may sàmm bu baax bi sàmm bu baax bi day joxe bakkanam ngir ay xaram ki dul sàmm bi tey liggéeyal xaalis rekk waaye moomul xar yi bu seene bukkit day daw bàyyi fa xar ya bu ko defee bukki ba dal ca coggal ga jàpp ca tasaare ya ca des booba surga day daw ndaxte xaalis rekk lay liggéeyal faalewul xar ya man may sàmm bu baax bi ni ma xame yàlla baay bi te baay bi yàlla xame ma ni noonu laa xame samay xar te ñoom it ni lañu ma xame te it kat dinaa joxe sama bakkan ngir xar yi baay bi bëgg na ma ndaxte damay joxe sama bakkan ngir jëlaat ko kenn du ko jële ci man maa koy joxe ci sama coobare bopp am naa it sañ-sañu joxe ko te am naa sañ-sañu jëlaat ko loolu la ma sama baay sant kàddu yooye ñoo féewalewaat yawut yi ñu bare ca ñoom naan dafa àndak ak rab dafa dof lu tax ngeen koy déglu waaye ñeneen naan nit ku am ay rab du waxe nii ndax rab mën na ubbi bëti gumba naka noonu yawut ya wër ko ne ko kañ nga ñuy dind ci kumpa boo dee almasi bi wax nu ko bu leer yeesu tontu leen ne wax naa leen ko ba noppi waaye gëmu leen yëf yi may def ci sama turu baay ñoo may seede waaye gëmu leen ndaxte bokk leen ci samay xar samay xar dinañu dégg sama baat xam naa leen te ñu ngi may topp dama leen di jox dund gu dul jeex duñu sànk mukk te kenn du leen jële ci sama loxo baay bi ma leen jox moo gën a màgg lépp te kenn mënula jële daara ci loxob baay bi man ak baay bi benn lanu yawut ya daldi foraat ay xeer bëgg ko sànni ngir rey ko noonu yeesu ne leen def naa ci seen kanam jëf yu baax yu bare ci ndigalu yàlla baay bi ban ci jëf yooyu moo tax ngeen bëgg ma sànni ay doj yawut ya ne ko jëf ju baax taxul nu bëgg laa sànni xeer waaye dangay suufeel tur yàlla yow nit rekk nga ban noppi di bëgg a def sa bopp yàlla yeesu tontu ne bind nañu ci seen téereb yoon ne yàlla nee na ay yàlla ngeen yàlla woowe na ay yàlla ñi mu yónnee kàddoom te xam nanu ne kenn mënula randal waxi yàlla kon nu ngeen mën a waxe ne damay suufeel yàlla ndax li ma ne doomam laa man mi yàlla tànn yónni ma ci àddina su ma deful sama jëfi baay bu leen ma gëm waaye su ma ko defee bu ngeen ma gëmul sax gëm leen bokk samay jëf ngir ngeen xam te nangu ne maa ngi nekk ci baay bi te baay bi nekk na ci man ñu di ko wuta jàppaat waaye mu bàyyi leen fa dem nanu taxaw fii tuuti ngir gëstu ci li nu soogay jàng ndax dégg ngeen li yeesu wax yawut yi degam jot gi mayu noonu faramfànce wax yeesu yooyu yépp xëy na mën nanu jëmale sunu xalaat tey ci ñaari tur yi yeesu tudde boppam ci saar wi ndax dégg ngeen leen ñaari tur yooyu ñooy buntu gétt bi ak sàmm bu baax bi ci bu jëkk nag dégg nanu ne gannaaw ba yéesu mengalee doom aadama yi ak xar yi ba noppi wax na mbooloo ma ne leen man may buntu gétt gi ku jaar ci man dinga mucc lu tax yéesu tudde boppam buntu gétt gi dafa tudde woon boppam buntu gétt gi ndaxte ca jamono jooju sàmm yi dañu daan defar benn wurmbal wurmbal boobu nag taxas walla xeer lañu ko daan defare sàkkal ko benn bunt bu jur ga daan jaar sàmm bi nag bu guddi masaana jot ba xar ya goor sàmm bi moom ma nga daan fanaan ca buntu gétt ga ngir wattu ay xaram noonu bala benn rabu àll di dugg ca gétt ga ngir fàdd am xar faw mu jaar ci bunt bi sàmm bi tëdd naka noonu sàmm bi dina ko yëg ngir dàq ko kon sàmm bi ci boppam moo doon bunt bi ub gétt gi ngir dara du mën a dugg ci biir naka noonu gis nanu na ndegam yéesu mooy buntu gétt gi bala kenn di bokk ci gétu yàlla gi faw nga jaar ci yeesu ku bëgg mucc ci fiiri seytaane ak peyug bàkkaar ak doolay dee faw nga jaar ci yeesu ndaxte moom kenn mooy bunt bi mën a tàbbal bàkkaarkat yi ci dund gu jeex gi moom la mbind mi wax ci mbirum yeesu kirist bi mu naan mucc amul ci keneen ndaxte ci ron asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wu nu wara mucce ndax yéena ngi fàttaliku li nu jàngoon bu yàgg ci mbirum yonent yàlla nooyin ak mbëndum ndox ma ñaata bunt la yàlla santoon nooyin mu sàkk ko ca gaal ga waroon a nekk rabukaay ci képp ku bëgg rëcc ndox ma benn bunt yàlla ci niti jamonoy nooyin moo doon lii képp ku bëgg rëcc ci àtte ba faawu nga jaar ci benn bunt bi gaal gi am kepp ku jaar ci bunt bi dinga mucc ku jaarul ci bunt bi dina sànku naka noonu itam ci lu jëm ci bésu penc ma mbind mu sell mi dafa nuy firndeel ne yàlla benn buntu mucc rekk la ubbil doom aadama almasi bi moom ci boppam mooy bunt bi mën a tàbbal nit ci dund gu jeex gi looloo taxoon yeesu ne man maay bunt bi ku jaar ci man dinga mucc waaye ku jaar feneen fudul ci buntu gétt gi kooku sàcc la saay-saay la léegi faaw nu jàll ci ñaareelu tur bi yeesu tudde boppam ci saar wi maanaam sàmm bu baax bi yéesu mooy sàmm bu baax bi ndaxte mooy ki nu bëgg ba joxe bakkanam ngir nun cëy moo di sàmm bu baax bi de ci mbiram yonent yàlla daawuda bindoon na ci saboor ñaar fukk ak ñett ne yàlla aji sax ji mooy sama sàmmkat looloo tax duma ñàkk dara damay toogloo ca mbooy gu naat di ma tette ci ndox yu teey di yeesal sama ruug damay womat ci yoon yu jub ndax turam su may jaar sax ci xur wural ndëm kurus duma ragal dara ndax yaa ngi ànd ak man sa mbantu sàmm ak sa nguul seral nañu sama xol waajal nga ma añ dëj ko fi sama kanam janook samay noon diw nga sama bopp sama mbàttu fees ba rembat ci dëgg sa mbaax ak sa cofeel ñoo ma wër sama giiru dundu gépp te dina dëkk ci këru aji sax ji ba faw loolu la daawuda bind ci saboor ci mbirum jàmm ak mbég ak kóolte gi mu amoon ci sàmmkatam bu baax bi di yàlla aji sax ji léegi nag li nu war a ràññee mooy almasi bi moom ci boppam mooy sàmm bu baax bi daawuda doon wax ndaxte mooy ki bawoo ci xelum aji sax ji te feeñu ci melokaanu nit looloo taxoon yéesu mëna wax ne man maay sàmm bu baax bi te man ak yàlla baay bi benn lanu wante bi yeesu waxee ne benn la ak yàlla gis nanu ni yawut ya fore woon ay xeer bëgg ko sànni ngir rey ko te li doy waar ci loolu mooy ba tey lu ëpp ci doomu aadama yi dañuy fakkastalu ci waxu yéesu yooyu ndaxte dañuy xalaat ne soo waxee ne yéesu benn la ak yàlla loolu dafay tekki ne ñaari yàlla ñoo am wala boog ñaari yàlla lañu am waaye du noonu mbind mi nee na aji sax ji sunu boroom kenn rekk la jenn yàlla képp moo am wante loolu terewul yàlla mi nekk ci kaw feeñu woon na ci kaw suuf ci melokaanu nit nanu ko fexe misaal xaraat leen ci jant bi tàngal sunu àddina si di ko leeral ñaata jant am ci àddina xam ngeen ko benn jant rekk moo am ana fu jant bi nekk mu nga fu sore ci jaww ji ca kaw a kaw a kaw waaye loolu terewul nu yëg tàngaayu jant bi fii ci suuf jaare ko ciw naajam mën nanu wax ne jant bi ak naaj wi benn lañu amul werante naka noonu itam kàddug yàlla nee na yàlla ak almasi benn lañu yàlla dafa mel ni jant bu tàng sore bu kenn mënta jege waaye yeesu dafa mel ni naaj wi nuy yëg fii ci kaw suuf ndaxte ganasi na àddina ngir xamle mbaaxu yàlla aji màgg te sell ji nekk ci kaw yeesu mooy bu baax bi jóge asamaan doon nit ci kaw suuf dee te dekki ngir jot doomu aadama ci alkande ji nu bàkkaar indi looloo taxoon almasi bi yeesu wax ne sàmm bu baax bi day joxe bakkanam ngir ay xaram man maay sàmm bu baax bi dinaa joxe sama bakkan ngir xar yi kenn du ko jële ci ci man maa koy joxe ci sama coobare bop naka noonu déggaat nanu ni yeesu doon yëgle waate ni mu fase woon yéene joxe bakkanam tuur deretam ngir gàddul doomu aadama seen peyug bàkkaar waaw ci lu wóor yeesu mooy sàmm bu baax bi ndaxte yéesu mooy ki ñu bëgg ba joxe bakkanam ngir nun te it mooy ki dekki te dina jox dund gu jeex képp ku gëm turam yow mi déglu tey ndax yaa ngiy topp sàmm bu baax bi wala keneen ngay topp bala nuy tàggoo tey nanu dégluwaat borom bi yéesu mi ne man maay bunt bi ku jaar ci man dinga mucc waaye ku jaar feneen fudul ci buntu gétt gi kooku sàcc la saay-saay la man maay sàmm bu baax bi sàmm bu baax bi day joxe bakkanam ngir ay xaram ki dul sàmm bi tey liggéeyal xaalis rekk waaye moomul xar yi bu seene bukki day daw bàyyi fa xar ya man maay sàmm bu baax bi samay xar dinañu dégg sama baat xam naa leen te ñu ngi may topp dama leen di jox dund gu dul jeex duñu sànk mukk te kenn du leen jële ci sama loxo amin nu ngi leen di gërëm ci déglu bi di leen jox dox daja émission bi ñëw ndaxte bu soobee yàlla dinañu jëm kanam ci linjiil dégg ni yeesu jàngale ci mbirum yërmande ji fees xolu yàlla su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li Yeesu almasi bi wax bi mu naan man maay sàmm bu baax bi sàmm bu baax bi day joxe bakkanam ngir ay xaram